Karim Gueye ñu gën ma xam ci Karim bu mouvement nitu dëgg waaw d'abord sant yàlla alhamdulilah alhamdulilah ala kulli haal mais alhamdulilah tamit ci li nga xam ni euh, yàlla sigil na l'islam yàlla sigil na wal ahlu sunna wal jamaa yàlla sigil nañu ñun sigil na imam euh, imam Aliou Badara Ndaw imam Aliou Badara Ndaw sigil na l'islam Sénégal alhamdulilah parce que gis nañ ni imam bi amaana bu taxaw woon ci kanamu baar bi tribunal bee ñu ko woon pour ay firi ay ay alxuraan buñ demee ba procureur di lijeenté ay alcorane juge diko lijeenté avocat di xol ban ay mo wax li ban ay mo wax lé bañu tax tribunal lolou taxul won te yaakaar naa ni kàddu yàlla bi yegg ci tribunal bobu lolou jarna sax teud fukki atu kasso man xamna ni jaral imam lolou donc dañuy sante yàlla ci lolou d'abord buñ démé ba ñu gis ni manam serigne daara yi Sénégal dañ fa mos tumu ranké ndax kayitu Sénégal constitution yeeg institution yi amul benn ciir bu mu jox diine tay imam bi fexe na ba duggal ko tribunal lé ñun nak dañu gis ni jugement bi dafa nek ndam ci ñun ndax kat ku wax da ngay wax ta yàlla rek tax jugement bi dafa équitable juge bi ci li xewagum ba fuñ ñu toll nii lépp mi ngi teggu ci yoon ta xam nañ ni inshallah allahu rab bu fekkee ni mu dooree noonu lay yegale imam dañ koy acquitté mu ñibbi këram inshallah bëgg nañ imam bi ñëw jiite ci naafile yi ci koor gi parce que xam nañ kat kii fi mu ne nii amatul place foofu wartu faa toog ndax taqul jegewul ku taq yónnul yóbbulewul lekkul lekkaanul voilà man la Ablaye Ndaw rakku imam ali Ndaw voilà ndaje bi am na solo solo su rëy la tax mu rëy mooy mouvement yi nga xam ne ñoo ko séq ñoo ni toll mooy njabootu imaam Ndaw les ligue des imams ak euh, jamaatu Ibadu Rahman nitu dëgg AMS coordination musulman Sénégal ak euh, waa Jamra RIS al Wahda mouvement yooyu ñoo dajee te dañ daan mos di daje. Mhm. gëm mos a jàpp ne imaam Ndaw liñ ko jàppee du dëgg dañ ko mos di wax te tribunal dëggal na loolu imaam liñ ko doon tuumaal juróom-benni tuuma yoo xam ne bu ci nekk xajul ci montagne. mais ñooñu dañoo mës a gëm ne imaam lii ñu koy tuumaal dara saxu ci. yaakaar naa ne ñoom bi ñu tribunal di déglu le 9 avril ba le 8 mai xam nañ ne imaam li ñu ko doon tuumaal ak lañ ko doon déglu sax moom du benn. daanaka ñun dafa mel ni ci tribunal bi ay cours lañ doon jël comme ay universitaires yoo xam ne université lañ nekk ñu ñuy jox ay cours waaye ñun gisuñ fa apologie de terrorisme blanchiment d'argent nangam ak yooyu yëpp gisuñ fa dara. Mhm. mais liñ fa gis dafa mel ni ñun dañ ñoo ngir jox ñu ay cours. kon lu leer mooy état bi dëgg-dëgg juum nañ tooñ nañ liñ leen di wax nag mooy ci baatu procureur de la république du Sénégal ndax moom moo fa taxawal ministère de public muy état bi ci baatam na wax ne imaam Ndaw ñu ngi koy jéggulu bàyyi ko mu ñib si te procès bi nag procès xaalis la ñëpp xam nañ ne procès xaalis la. jàpp naa ne suñ jàpp doon imaam danañ jàpp beneen beneen imaam loolu nag dafa war a yee imaam yi ñoom ñëpp ñu daal di bennoo xam ñoom ñooy ñan ak fan leen jëm su dul loolu danañ leen xaaj di leen jël benn par benn par benn di leen rey ba ñoom ñëpp ñu jeex kon ñu muus xam ne ñun ay jullit lañ monsieur Macky sàll fiñ lay xaar du fii wér gi yaram gi doxatul wala dox na njàng mi doxatul sécurité doxatul nit ñi amatuñ lekk daanaka ñi bay gerte ren gerte gi ni mu bëree amuñ fuñ ko jaay ñii seen gerte lakk na ñii seen gerte saxe na ci yooyu lañ ko doon xaar waaye xaaruñ ko mukk muy ñëw di toroxal ay doomi senegal yoo xam ne dañoo tabax ci réew mi loo xam ne neexu ñuy wut na doy na su boobaa nag lañuy ñuy def yeggaguñ sa waaye su boobaa li nga doon dégg ci réewu naar yi mooy dégaas irxal su boobaa nag Macky Sall dana ko commencé dégg ndax projet bi la mu koy wan mooy askanu Sénégal moom jox nañ ko ginnaaw parce que moom daa jàppoon ñii ne ñii dañoo bëgg a taal réew mi jamono bu nekk nit ñi di gën a bëri projet bi am na ñoo xam ne bu ñu xëyee duñ ndékkee duñ añ duñu reer ca tribunal ba la fanaan benn politicien mosu koo am projet bi mën naa wax ne c'est la première fois ci histoire Sénégal kon sénégalais war nañ ko gannaaw. dara doon nañ bos bu suñu rongo yi jeex na indi nañ Oumar Badara Ndao mu ngi si suñu daara ji ngir yàlla ak yeneen tibi namu nañ ko sonn nañ jooy nañ jàng nañ teel alxuraan bi ñaan